Thierno mo ngi sant ñep waaye mo ngi sant wa Scat Urbam fi nga xamne fi la ko yàlla toogloo fi nga xamne fi la ko yàlla may mu fi yew di fi fanan di fi jàngale di fi fa tabaarakallaahu tarbiya talibi di len fa tabaarakallaahu sottil ay leer mo ngi len di sant di len geureum di len ñaanal yàlla mbollem lu mu mun am ci yàlla ci yonent ba yegg ci sëriñam Thierno Mouhamadul bashir mo ngi ñaan yàlla bu mu len eppele bu mu len ci eppele dara lu mu ci am yàlla na ngeen ci am yàlla nako yàlla wessare ci suñu njabot yalna yàlla wéral ñu feebar ñi yal yàlla faj soxla yi yal yàlla def ci poos yi dara yal nañu yàlla sàmm ba kenn ku ne delluwaat ci sa kër fekkaat sa njaboot ci jàmm ci barke alquraan al azim waaye ke ci barke salaat al fatihi salaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ceerno wi caggal yettude allah e julde e nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam gannaaw sant yàlla julli ci sang-sang sallallahu alayhi wa sallam e ñaagaade weluyo allah yo won e ceerno men cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhum di ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na yàlla beesalaat ngërëmam ci suñu sëriñ mawlana sayidi cheikh ahmada tidiani radiallahu anhu e denndaangal halifaaɓe makko e denndaangal muqaddameeɓe makko ak mboolem halifa sayidi cheikh radiallahu taala anhu aki ay aki mboolem muqaddam sayidi cheikh radiallahu taala anhu e denndaangal almuɓɓe makko ak mboolem taalibi sayidi cheikh radiallahu taala anhu yo allah wattu en heen yalnan ci yallah boole eɗen ñaago teddungal allah e moƴƴere allah yo ɓeydo juuraade e ceerno men mawlana cheikh alhaaji umar alfouti radiallahu taala anhu ceerno nene ñu ngi ñaan mbaaxu yàlla ak teraanga yàlla yàl na dolleeku di sotteeku ci suñu sëriñ mba maolana cheikh alhaaji omar alfouti radiallahu taala anhu eɗen ñaagoo maolana tabaraka wa taala yoo allah ɓooynan en ɗo fittaandu ceerno men ceerno mouhammadul bachir taw ene wondi e cellal ceerno nene ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yalna yàlla guddal fanu ceerno mouhamadul bachir te mu ànd ak wér ceerno wi taggal ɗum noon o salmini bandiraaɓe julɓe ɓe fof o juuriima ɓe e ooɗo jamma moƴƴo ceerno neena gannaaw loolu mu ngi nuyu di ziyara mboolem jullit yifi teew ci guddi gu tedd gii omo ñaagi en du'aawo omo ñaagi en yaafuya e jonde nde mu ngi sakku ci ñun ñaan wayit mu ngi ñuy jéggalu ci jotaay di o wiinde wonnoo won arɓe gila subaka haa jooni ko e jonde wootere tan jooɗi ceerno neena am na ñoo xam ne dippi suba ba tey ñu ngi fii toog ci benn jotaay rek la ñu toog ba tey o wi omo yettinana en salminagu jinnaɗo meɗen ceerno men giɗo meɗen hono ceerno mouhamadoul bachiru muntakaɗa ha cheikh alhaja oumar alfoutiyi radiallahu taala anhu ceerno nena mu ngi ñuy jottali suñu nuyu sérigne suñu wayjur suñu xarit suñu soppe di ceerno mouhamadoul bachir muntakaɗa ha cheikh alhaja oumar alfoutiyi radiallahu taala anhu ceerno mouhamadoul bachiru ene andina en omana wondi e meɗen ko suuɗi e ko feeñi ceerno nene ceerno hamdoul bachir mu ñuy yegal ni mu ngi bokk nekk ak ñun ci lu nëbb ak lu feeñ kadi omadu wono gooto kala e meɗen ko yiɗi ɗo allah e nelaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam مولانا سيد الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه مولانا شيخ الحاج عمر الفتي رضي الله تعالى عنه إدن دانغ الحاج جمود ففيو على ودلهم تيرنو نينا تير محمد البشير مغيني نيانا الكن كوني كن كوني تنين لمو بغتي يالا أغيون انتبي صلى الله عليه وسلم أكسون سرين بمولانا سيد الشيخ رضي الله تعالى عنه ak suñu góor yàlla bu baax bi di maolana cheikh alxaaja umar alfotiyu lu mu bëgg ci yàlla yàlla na ko yàlla defal loolu enen ne kadi eɗena nduwono dendangal ardiɓe men ɓe pop yo allah yurmoɓe yaafoɓe ceerno nena niki noonu ñunit ñu ngi ñaanal suñu way dawlu yëpp yalna yàlla yërëm leen te jéggal leen o wii ene jeya ko jaggiɗo dali fornaɓe ɓe ha o haala ngol ɗo konngol e jeese maɓɓe nena bokkunati li tax mu teye fi daira dali for ba mu wax kaddu giici seeni kanam ñu sooga yeyweeku e siftindeɓe hanki so ceerno ahmadou diallo ariino ɗo ko kanko udditta jonde nde ko kanko uddata jonde nde تيرنو نيرن غير ما فاتلي لين ديمو كي ني واخ تيرنو احمد جلل رحمه الله عليه جوتاي بي ولا يو ملني بونتي موسانتوك موي اوبي جوتاي بي تي موكاي تي وي وون بيدو بي فوف كو سيدي جو سو اوديتينا تيرنو احمد صالح مباي كانيوم ني ويدو هين كونغو دي مودوم نينا ني في نيك تي ني مين دارا دي نييب سيدي لا نيو تي لي مو واخ بو واخي با نوبي كي ني واخ تيرنو احمد صالح moom tamit mu teg ci ay kàddu o wii yidde neɗɗo e yeeso muɗum ene waɗi fayide de kono yidde neɗɗo o yiɗan ɗum dendagal ɓesgu muɗum e caggal muɗum ko ɗum ɓuri wadde fayida ceerno nena bëgg nit ci kanamam loolu am na solo tayit baax ne waaye bëggal bëgg nit ki bëggal ko tamit mboolem njabootam ca gannaawam nena lii nag moo ëpp solo ceerno wi en jii e mawngu maɓɓe ceerno ahmadou salihu mbaye yo allah ɓooyno ɗum ɗo ceerno ilimane diallo yo allah yurmo yaafooɓe kono kala ɗo njahanno ɗen ko enen e maɓɓe njaadata ceerno neena ceerno ahmadou salihu mbaye yalna yallah guddal fanamte mu yaggal ko fi ceerno ilimane diallo yalna yallah beesalaat yirmande ci moom ak magel giñu magel ceerno neena fu ñu musaana dem ñun ak ñoom ñooy ànd o wi seedeji muɗum ene keewi kono hannde ɗo ɓuri wonde seede muɗum ko jegi jawara e ceerno oumar sall oɗo nena ñi nekk seeda ci liimu wax bari nañu de waye ñaar ñiimu tuddu seeni tur ñi gën nañu nekk seeda ci wax yi nga xam ne moom la wax e dendangal daaira safina ɓe jaadanno ɗen ɓe fof ak mboolem daaira safina ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo doon ànd ceerno wii eɗen nganndi ɗo e mali wonaa ɗo e, e thies ceerno nena xam nañu fii ak mali du diggante dakaru gi ak thies bii ceerno wii ɓe njaadii toon ko wonaa goo ko wonaa ɗiɗi ko wonaa tati ceerno nena and nañu ba mali ludul benn ludul ñaar ludul ñett ceerno wii somi ummiima ɓe ngummoto somi jooɗiima ɓe njooɗoto ceero nee na sa yuma jogee ñu jóg waaye sa yuma toogee yit tamit ñu toog ceerno wi goɗɗum heen ni o yahat ha o yurmooɓe o wiya ɓe njooɗo de ɓe mbiya alaa ceerno minen kay min njooɗotaako ceerno neena leg leg dey senti ñoom coono ba mu yërëm leen mu ne leen tog leen ñu ne déedet ceerno ñun kay feeg yaa ngi taxaw dañuy taxaw ànd ak yow o wi omo siftara hitaande ne ceerno mouhamadoul bachir ari toon e ngal jaɓɓungal mawngal ngal ɓe jaɓɓatano ceerno bachiru e ngeenaange e kiinguleeki kono ko kamɓe ngadi toon ceerno neena maa ngi fàttaliku at ceerno mouhamadoul bachir du ñëw foofu ñu koy teerodi ko gatandiku ci tàngoor gi nekkoon googu ak naaj ba waaye ñoom ñoo fa jiitu mi ɓe jaɓɓoyi ceerno ko ɓuri kilooji sappo e joyi ñu dem teeruji ceerno lu ëpp fukki kilo ak jurom. ceerno wii ɗum noon ko yidde waɗi ɗum ceerno ne mbo gisee li yépp cofeel rek moo koy def ceerno wii ɗum waɗi ne ngarɗon naane o wii on onon ko onon ngoni njaati geeɓe on ngonaa hoɓɓe ceerno moo lolo tax sank ceerno len yeenayi njaatigi fii tey yen doolen ay gam ɗum waɗi o ñaagii allah tabaraka wa taala yo allah accit on ko juuti moo tax ceerno ñaan mawlaana tabaraka wa taala seen àndi gii yàlla na ko yàgg yàlla yàggal fi lool o wi ɓes ngu eliman diallo gila alhaji malik ha ɓurɗo famdude yo allah wat e maɓɓe barke nene njabootu góorgi alhaji eliman diallo la tàmbale ci alhaji malik ba ci ki gën a tuuti yal na yàlla sotti ci ñoom barke o winani tan omo namdo ceerno samba ko kanko rokkunomo moy laaj sanka kenn ci njaborki ndax mom moko mayon koku ko do o janganno qur'ana fi la don jange alquran o wi ko do yidde wawi had ceerno neena ciofel fi rek le muna yem ceerno wi ganni en noon oɗo jamma ndu wono en mo e nder jamme ceerno nena ñu daadi nag fas yeene ci guddi ak ci barke guddi gi ñu ñaanal ci góor yàlla boobu woni duwa wuuji ɗi gudditirɗen naane ɗi mooy ñaan yi nga xam ne moom lañ ubbe won jotaay bi sànq ndewnuɗen hen bani meeɗen debbo soxna aishata ba to mboolo biraan ñu daal di ci toftal suñu jigéen muy soxna aishata ba fa leete mboolo biraan oɗon baliraɗo debbo kanko adi darnuɗe daa'ira wonande meɗen o wi daa'ira mboro birano o wonande men kanko adi ɗum wadde ceerno nena suñu jiguen joju mo jek sos daa'ira mboro birane mbi dafalño ko ñun o wi gorgol gorgol makko ene wiyeteno sala guuro amona ɓenn bajjen buttudon sala guuro gorgol mum souleyman ba nena bajjeno souleyman ba e mamadou ba ak ñoom mamadou ba ne o wi guila e ɗen caaroy ceerno nene depuis ñu ngi caaroy o wi gammu men gadano 86 87 suñu gàmmu gu njëkk 86 87 kanko adi addude enveloppe o waɗi heen hadiya makko o wii ko ma inde makko haalee daande dow ceerno nene mum moo njëkk jël enveloppe def ci hadiya ñu ne nañ mu ne nañ ko jox ceerno te it nañu wax turam ca kaw haa ngummi ɗen toon ngarɗen ga ceerno ne ba ñu bàyyee ko fale ca caaro ñu ñëw fii haa waɗi sahaa gooto taw o mawni ceerno nene damano di dem ba magel dikkal ko o renndini ɓesngu makko fof mu daadi mboole njaboot gi yëpp rewɓe e worɓe goor ñi ak jigéen ñi ɓe ngari ɗo ñu daadi ñawfi o addi enveloppe makko mo daadi indi enveloppe am o wi ceerno eywa mi ari mo daadi wak ceerno eywa ñawnaade o wi ngarmi ko ittude daa'ira o e juuɗam mbeɗa watta ɗum e ɓiyam oɗo woni acci ba mone tawi nag dema dikk jël daa'ira bi dindi ko ci samay loxo te ko ci sama loxo doom ji di soxna acci ba o wi mi o waɗiri noon o wi aywa mi halfinima daa'ira ho ha yowma alqiyamat mu ne aywa yëkkatina daa'ira bi teg naa ko ci say loxo dénk naa la nag dénk naa la nag daa'ira bi ba yowma alqiyamati o wi ɓooytaani e muɗum o ruttii to joomi ko yaggu rek مدادي ويجي بروم بسبحانه وتعالى دائرة أونا يا تيرنو نينا دائرة بديوي ها إدية دمونادي بجامونو يي پاسي وي مينيوم أحمد مختار إني وي جينب ركو أحمد مختار كتود جينب جينب عبدل كنكو آئسة باو وي جينب أو كنيمني محل في نيما دائرة مومتمد aicha mu daa di wax jeyna ba mii ye wit dénk naa la daa'ira bi nga xam ne moom la ma sama woy jur dénkoon o wii e darorɗo lewru ut jawtundu ɗoondu kadi eɓe nguddidi whatsapp o haali heen haalaaji jurminiiɗi ceerno neena loolu ci taxawaayu weeru ut bi paase la ca gannaaw loolu ci seen groupe whatsapp ba mu daa di fay wax ay kaddu yu daw yaram yontere kadi fawtuyi heen kan kone o hawri e lajal ceero nene benn samin mooci daadi tegu momit mo wiiji boroma mbi subhanahu wa taala ene jeyaa e konnguɗi makko cakkitiiɗi ceero nene bokkuno ci ay kaddam yu mujju o wii ɓe ndadode haa tiiɗa nangon daa'iro muye munelen aywa takkulen ba degar te ngenteye daa'ira bii o wii kamɓe pop ko ɗo ɓe kiiri hannde ñom ñep fileñu weesen guddigi tawi ceerno wi o noon baawɗo noon duwanaade ɗum ko waajib ceerno nene nag jigen ju am taxawaay juuju nag ñaanal ko nag waajib la o wii limtude ɗee ɗoo geɗe wonaa simmitaade alaa ko hoddiro allah tan ceerno neena tuddaat mbir yimmel nii di ko fàttiliko du dara ndogalu suñu borom bi subhanahu wa taala rek moo koy waral o wii hannde oo ɗoo saha fonnoo taw demu ko kuñakaari ceero nene tey ci jamono ji woron na ko fekk fële ca kuñakaari ci biir mali nde wonnoo ceerno maɓɓe gadiiɗo ɓe toɓɓanɗe baa o hawri e lajal ko ɗeeɗoo balɗe seen sérine gulen njëkk bindal baa mu ngi génn aduna ci fan yii woni ceerno makko woni mawniiko woni sehil makko woni fofof makko ndi sériñam ndi magam ndi xaritam ndi leppam omo wiyee ceerno yahya tal muy ceerno yahya tal menn kala nde ɓe njiindirima o siftinamo so yiñu gise dana fattali ceerno o wiye ceerno min de ko nene ma halfinno kam muna mono ceerno man de sa yaay momola denkon hoto welsundomi de ceerno buma saggane de ceerno daadi ceerno jaaboom yomo ala min kay mi waawa welsinaadema ceerno ne ko man kay munumala sagganee o wii nde ɓe njiyondiri fof ko maɓe tooñondiri ceerno nden so yiñu gisee rek dañuy daadi kalanta seen mbir on ne kadi nootiima joomum ko ɓooyaani e ɗee balɗe koko yit wuyino borooma mbi subhanahu wa taala ti fan yi o wii duwanaade oon ko duwanaade hoore makko ceerno neene tamit ñaanal jëmmuju mel noon ñaanal boppam la rek so tawii o duwanaama sabu jaggude mo duwa o omo haani nanngude kadi omo haani ruttude duwa o ceerno wi haɗi mo yaade janeyse ceerno yahya taal ko geɗe tati ceerno neene lakotere dem mali ca deju ceerno yahya taal ñettimbirla o wi goo goo o heɓaani yamiroore e ceerno men ceerno mouhamadoul bachir benn bi njëkk mooy jotul ndigal ci ceerno mouhamadoul bachir ngir mu dem o wi kanko de kala ko ceerno hokkaani mo yamiroore o waɗataa ɗum moom de nee na moom lu ko ceerno mouhamadoul bachir joxul ndigal du ko def kadi o namdotaa ko heen ceerno mouhamadoul bachiru yamiroore تيد دو ساكو تي تيرنا محمد البشير ديغل اوما جابي نفر مكوري تان نينا دما دما لال رك سما نوبر دي دغلو سو تيرنا بشير وي كو سوباكو بو تيرنا بشير ني سوبا لا او كو سوبا رك لا سو تيرنا وي كو كيير بو تيرنا ني لا نغول لا سو تيرنا وي كو جام كادي كو جام بو تيرنا ني غودي لا نينا غودي رك o wii ɗum ɗo ene jeyaa e ko haɗimo yaade ceerno nene li bokk no ci ngantinga xam ne moo ko tere dem o wii toɓɓere toɓɓere ɗimmiire nde ñaareelu poñbi ko ooɗo jamma moodi guddigii o wii jamma o ne mawni e makko kono kadi huccondirde e jeese meeɗen tedduɗe ɗe ene mawni e makko ceerno nena guddi gi rey na ci moom lool waaye it mu janog suñuy xar-xaru kanam yi loolu it rey na ci moom o wi toɓɓeere tat ɓiire nde nee na ñetteelu tomb bi o wi wonnooɓe sababu ha o ari ɗo e wuro wuro ngo ñe nekkoon sabab ba mu ñëw fii ci dëkk bi omo wondi e maɓɓe gondigal moƴƴal yàlla dogal ñu nekk nekkin go rafet ngoni ɗo njaatigeeɓe makko ngoni ɗo fof makko ñooñuɗaadi fi nekk ay njaatigem nekkal ko fi lepp ene jeya heen ɓii mawnii ko kadi ko ɓii ko bokk na ci koo xam ne doomu magam la tawit doomam la ene wiyee aichata moussa ɓan mu ngi tuddoon soxna aichata moussa ɓan o wii kanko e ceerno yahya ɓe ndaɗondirani kamɓe duttidi e joomiɓe mom ak ceerno yahya mimu tuddu leegi rawante wuñu ñoo bokko ayfan wiñu wiije sen borom bi subhanahu wa taala kadi fof ko e juuɗe makko wonno te yi wallu taxawaygi yépp ci ay loxom la nekkoon o wii ko ɗum de haɗimo yaade mali nene lii muñu nettelli muñu wax moo ko tere dem mali so ɗum alaano o saha tawatama ko mali buli amul won jamono ji day fekk moom mu ngi mali ɗu ceerno wi so ɗum yawti e ɗemngal ceerno mouhammadul bachir enen fof omo wiya en en jaarama ceerno neena gannaaw loolu ci lammiñu ceerno mouhammadul bachir ñun ñëpp mu ngi ñuy jaajëfal debbo heen gorko heen suka mawɗo heen góor ak jigéen mag ak ndaw o wii gila e leeɗe ɗe pop e dawa'i ruuji ɗi pop ɗo ngummi ceerno wi on jarna on jarnama ceerno nena ci karti yépp ak fu mboolem daa'ira bayye ko ceerno nena ñu ngi leen di jaajëfal o wii noon haa tengti e musidɓe ummiiɓe guure e guure ha tenti e wuro meɗen wiyetengo dumgo law ceerno nene rawatina nag mbokki nga xam ne daña bàyyi ko dëkk ak dëkk rawatina suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi ko fële te dumga laaw ɓe njeeyi en teddungal ɓe njeeyi en ndimaagu ceerno neene jaayante nañu ak ñun ci teraanga jaayante nañ ci ñun tamit ci wàllu tamit fa tabaarakallahu dereet ɓe njeeyi en kadi gilli sabu allah ceerno nee na jaayante nañu ak ñun cofeel ngir jëmmi yàlla yoo allah rokku en yoɓondirde e maɓɓe e dow leydi yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu fayante ak ñoom teraanga gii ci kaw suuf keɗondiren haalakaani waɗi fayide de bi jaahi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ceerno wi ɓe ngarii e jam yo allah waɗɓe ɗo e jam haɓe koota e jam ceerno neena ñëw nañu ci jàmm waaye it yàlla nañ fi nekk ci jàmm ba ñu ñibbiwaat ci jàmm bi jaahi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ceerno wii yoo allah rokku en hawrude ɗo o sahaama wuuri kadi yal nañu yàlla may ñu teewewaat fii neke ni déwen gooto e meeɗen fof ene ɓeydii to baŋnge allah ene ɓeydii e aduna muɗum fek ki kenn ku ne ci ñun mu ngi yokk digganteem ak boroomam bi tabaraka wa taala mu ngi yokk ci wàllu aduna bi jaahi rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam ceerno wi so ɗum ala kala ko haalete no haalaama ceerno neena bu loolu noppee mboolem li ñu waroon a wax wax nañ ko o wii hay so tawii no haalaka haaɗiino ɗo miñii ko ɗo neena doon tane waxtaan bi yemoon na ci rakkam jii gido makko sehil makko cerno ibrahim so haritam soppem di cerno ibrahim so o mo ganduda ko hafizul qur'ana woni ko denɗo qur'ana kadi ko o mo renna bibbe julbe yalla mayno ko wattuno alqur'an waye ɗe jangal do mo adami badilen wattulo alqur'anul karim cerno wi ko noonne kadi omo waɗa alluwal tafsir alluwal tafsir paayodingal no feewi noon it tamit lay defee tafsir tafsir bu jaar yoon kanko daɗimi gandal fof ceerno neena moom moo ñu sut xam-xam kono noon teddungal e needi ceerno waaye neena li lal mooy teraanga ak yar ceerno wi kala o udditta tafsiru o mo o tintina kala nde tafsir o timmi kadi mo o nodda ceerno o timminamo on o tintinamo ceerno ne sayudeme bay tambali tafsir ɓe nde koye wo mo yegal ko way tafsir ɓe ɓudeme ba noppi yit ndey wo ceerno mo yegal ko o wiye ceerno mi yaafi mama e arde mo daadi wax ceerno jeggal naala nacci déplacement ɗi so wona sone duwe tan ngara ludul ni buñu deme bay ñaan nga daadi ñëw o wi ɓe mbaɗira noon ceerno ne ñu daadi defee noonu yo allah juutnu ɗum yalna yallah sahal loolu o wi hay sunno haalaaji ɗi fof kaatnoo koɗo haala makko ɗo fof timme ceerno nen doon tane waxtaani yëpp yemoon na ci kàddumi rek waxtaan gi doy na o wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno mouhamadoul mouhtar silla noon it ceerno mouhamadoul mouhtar silla moom it on ne haala mum tan yoni kooku yit waxam rek doy na omo haala bange zahir omo haala bange batin ndax Pape Makhtar day waxtaan ci wàllu zahir waxtaan ci wàllu batin omo haala bange sharciya omo haala bange tariqa omo haala bange xaqiqa dana waxtaan ci wàllu shariya ci wàllu tariqa ci wàllu xaqiqa on tan so yimbe yimɓe jondininooma e ko halno ko heji ceerno neena mom moom rek yit bu nit ñi doylu won ci limu waxtane doyna doy na o wii chérif mouhamadul mouhtar tin on ne yit sherif mouhamadul mouhtar moom it on halam mum haalaaka kooku waxam kenn waxuko o wi kanko mo ngannduɗaa yettode wodani allah والكو الله فميني مو انر خلاص الزحب كو كان كو تان الله فميدوم تيرونينا سنتي نيلنا يالا موم شريف محمد المختارتين امنا لكو يالا خملو ديگلو كو تي خلاص الزحب موم كوت دونغ موكو خم كان قطان الحمد لله رب العالمين كان قطان الحمد لله رب العالمين او مواونو جوغا دي هير دي حاجة مومرت تيرونينا sant ñeel na yàlla munoon na téye guddi gi ba waxtu bi jeex o wi sinno wanaano sahaafa eɗen mbiyamo ceerno yoni ceerno yoni bu dul woon ni léeg-léeg ñoo koy topp di ko soñu di ko wax ne sëñ bi waxtu bi nga amoon jeex na de ceerno wi sinna ko sago muɗum taw ceer sérif mouhamadoul mouhtar tin so aree haalde ummoto ene yaha bange fu naange enerutoo bange hirnaange ceerno nee na bu doon sagom moom bu shérif mohammedul Muxtaar tin di wax limu bëgg dal moy moy jobé di dox gauche di dellu droite di dem penku di dellu soow o wii ko ndeen o ɓurata jamono joju lay gëna am rythme lol lol o ko hali e maulana cheikhana ahmad tijani ko tan e ko hali e allah sallallahu alayhi wa sallam ko dum tan yoni تيرنو نينا لي مو مولانا سيدي الشيخ رضي الله تعالى عنه مو وقتي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم لولو دوينا سك من النكدي ريبو نوبي نيوغي ميكرو سانتا من توتو نوبي ميكرو سانترال او هامبي ن مباتا هن غمو وي هاغونتي جوغي بي غمو بي وي انن تن انن ادن باونو يوندي كينادي هن نينا نيون نيغا خامني نيو تاي وون ميكو بي microcentrale bi leeg leg di ci xaw a fa tabaarakallaahu loolu nee na bu ñu ko joxoon rek ñun tamit ñu téye ko rek o wii mantooɓe annabi o sallallahu alayhi wa sallam ceerno nee na sang yu tedd yi nga xam ne ñoo doon tagg sallallahu alayhi wa sallam o wii kamɓe tan eɓe mbawno jogaade jamma o eɓe mantana en ne laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam konngol gootol ƴettaaka heen ceerno nena ñoom rek munon nañu teye guddigi diñu ba diñu jooɓel rasulillahi sallllah alayhi wa sallam diñu wayal sallllahu alayhi wa sallam ba guddigi jeex fekk yëkkatiwuñu benn kàddu ceerno wi yettoode woode ni allah tabaraka wa taala imam moussa gueye oɗo o mantata ɗum o duwonto ɗum ceerno nena sant ñeel na yàlla tabaraka wa taala imam Moussa Gueye mii duma ko gërëm de dama koy ñaanal yàlla o wi kala fathu mawlana cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu mboolem fathu mawlana cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu e ko faate e kasfu e ilham e marifatu billah lu aju ci mbóot yi nga xam ne moom la ceerno tudd léegi yoo àlla yet endum yal na yàlla wërsëgal ñu cër yii amin o wii ko imam moussa gay haali e makko ko pëpp ko e imam moussa gay woni nee na mboolem kaddu yu rafet yii nga yëkkati askanale ko ceerno ceerno nee na ci yow rek la nekk o wii ko ɓe nganndondiri fay hannde ceerno nee na bi ñu xamante jëm tey o wiyatode woode ni allah ɗum ɓooyi loolu yàgg o wii ko cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu waddi ɓe mawlana sayidi cheikh ahmada tidiani moo leen boole hedde 94 95 94 95 o yejjiti tigi tigi tigi hitaane de kono kam woɗɗaani ɗoon fatena atmi balla ci ati waaye moom soriwul foofu ndeen taw kanko imam moussa gueye omo yeewta ɗo radio duniat jamono jooju fekk yaa ngi waxtaan ca radio duniat allah waɗi ceerno wi ene jaggi radio duniat yalla dogal ceerno ngi jàpp radio duniat o hawri e imam moussa gueye ene fira jaw haratul kamal motombek imam musa gueye firi jawharatul kamal dum weli mono feewi cerno nene lolou dadi may neex lol o wi o wadi tan no jando wadata ni tan cerno nene ma dadi def ni ki nga xamni ne mbette dikkal nako ni muy def rek ma dadi def non o wi وتاج نوري أويسوتو يتنبيدو جوغي جدل إلاوال مولانا شيخنا أحمد تجاين رضي الله تعالى عنه يو الله والله همي يندر إي إمام موسى جي مدادي دوغو تي ديغن تمك بوروما مونا يالا بودي أمنا تيرتي طريق بيغا خمنا لا نك يالا ما يالا ورسغل دال مدادك إمام موسى جي أوي بوراني يونتر تيرنو أبل سمن allah waɗi kanko imam moussa gey o ari e ceerno yo allah dogal imam moussa gey miiɗaade ñewte ceerno omo wondi e biyeteeɗo abdoullahi diallo e cheikh ka mu ngi annda kiñoo abdoullahi diallo ak cheikh ka ɓe ngari salminde mo ñu ñëw ndi ko nuyu ɓe ngan e ɓe ngari ɗo yidde anndinde ceerno sayidi jamal ariiɗo eɓe jiiɗi o ara ɗo ñu ñewdi yëgal ceerno so yiɗi jamal ñewna fii ci sénégal ñewna fii ci dakaru bëgg nañu mu yegsi fii ci ceerno ceerno wi ayi ko ñaagino ko cheikhana ahmada tidiani ari hen ceerno nee gis nga li mu ñaanoon cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu fekkee na loola moo di ni ñëw na si o wi sayidi jamal oo ɗon ko kanko rokkonoo yamiroore yoo fiiw nit rawda cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu ceerno nee na moom sayidi jamal googu moom la ñu joxoon ndigal ca sët ya na defaraat rawda maamam ja sayidi cheikh ahmada tidiane chérif radiallahu taala anhu allah hoddiri ne ɓe ngasi rawda o nde allah hoddiri ɓe gasni asde rawda o ko kanko nannanno junngo makko e nder rawda o omo membo holdo sheikhana ahmad tijani heedi e der rawdo biñu gasse ba noppi mom seydi jamal mi modan jël loxam diko duggal ci bil xabru bi di làmb fan la seydi cheikh ahmada tidiani féete ci ba mel bi o wi ha o memi mam mako مولانا سيدي cheikh رضي الله تعالى عنه او وي او مان دوين بامو làmb داج مامام موني ne sama ني في لا تد كادي ايبي kadi eɓe pilma

hay gooto jillaani e maɓɓe so wonaa gooto musiɗɗo ene yettee caam jamano jooju ñuy liggey liggey googo kenn raxulti sutu cheikhana ahmada tidiani lu dul mbenn mbokk mi nga xam ne fii la nekk fii la dëkkoon mu ngi sant caam ceerno wi kala saha o mo arannooɗo ceerno e jamono juni daan na fi woon ñëw o wi o fuɗɗinooma wallifaade winndidde faccirde rima e jawahiral ma aani o itta ɗum e arabe o watta ɗum français mo daadi koye tuhol ci lugal arabiya mo defat ko français nde ɓe pilmi bandaw biñi ɗaade filme li ñu ɗon filme o wii filme oɗon alaa fof ɗo adi holleede e aduna so wonaa ɗo henne nene biñu noppee ci loolu kaset bi amul fenn fuñ ko njëkk a teg ci aduna bi lu dul fii ci kër gi o wii oɗon wiyetee ko malik thiam sangu boobu ngi tudd haj malik thiam dariɗo heddoɗon ko ɗon min mbaɗno écrasé o wi oɗa nokku to ɓeyɗa dariɗo ko ɗon écrasé a o waɗano fe fawaje taxa falañu defon écran bide setan loolu imam moussa ne jooɗi enen foof eɗen jooɗi imam moussa ne jooɗi enen foof eɗen jooɗi ha ɓoy imam moussa wi ɗum ɗo kam est ce que ɗum ɗone huɓini ɗum ɗon huɓini haldi darde de o wi imam wi ɗum de ne hulɓindi darde de imam moussa daadi wax ni a ah, yo limom ragalluna seeɗo de متعين جيجي هن يميرور إسك أمنن تندقل كان كو أنن تاجول في مم دودي قوالف مدا أودا أوي كلا كمبن كشيخنا أحمد تجاني يميري مدا دي وقني من لما دف لونه شيخنا أحمد تجاني مم سجوك ندقل أوي قرنن الله ودي وأندونير إمام موسى جي أو أمين أويلاد هاي صحاقور ceerno neena ca jamono jooju ba tey la yàlla dogal moo xamante ak imam moussa gay waaye musul soppeeku benn yoon ba tey o wii kala moƴƴo moo yi o yiɗata ko ceerno ànda moƴƴoon ceerno neena mboolem ku baax koo xam ne imam moussa gay gis na ko lii doon bëgg-bëggam dal ak noflaayam mooy ceerno xam waajooju rek o wi hay joni joni so yalti so hawri e moƴƴo tan o wiyata ko ardutoɗen nene leegui leegi le so buñu tason buggi noon dajag waaju baax rek day wax ni kayeñu delluma walla sama xarit bi ɗum waɗi ceerno wi imam moussa gueyi a jarama yo allah yoɓe moƴƴere imam moussa gueyi ceerno nene jërëjëf yalna yallah fayley mbaax ceerno wi ko sakkito wiide ko enen pop en jarama ceerno nene limuy mujja wax moodi ne njabot gi yëpp jërë ngeen jëf mo limti juut na walla mo limti juuma ceerno nee na ku daal di lim daal nga guddal walla am koo bàyyi keɗoɗen keɗoɗen ceerno wii o wiyata en tan ceerno lim ñuy wax rek moo di aleykum bi salatil fatihi ceerno wii o wagginta en ko yen gon e salatal fati ceerno nee na benn ndigal li ñuy digal moo di ne nañu saxta salatal fatihi o wii denndaangal ko cheikhana ahmada tidiani gollannoo e inde nee na mboolem li cheikhana ahmada tidiani daan jëfee ci tur yàlla o wii mamma ko nelaaɗo sallah alah wa sallam wiimo woppude ndaangal ko joginoɗaa ko pop ngollira salatal fatiha dendaangal ko gollirannoɗa ko fof nan e salat al fatiha neena lola motax mamam rasulillah sallallahu alaihi wasallam ne sayyidi cheikh radiyallahu taala anu bayil mbole asrar yi nga yoron yep nga téye ci salat al fatiha ndax mbolem yi nga don jëfandikoo yep ñu ngi ci biir salatal fatiha won kaalɗo naane ceer nen am na ko ko wax sank kala baddo salat al gootol gotul kep ko xamne rek nga ben salat al fatihi o wi tewma harmi jeygol sa yappu yaram aramna safara o wi hoto sikkito mbale jaɓama walla jaɓaba ceero nena bul xelu ñar ndax nangunani walla nanguñu o wi nde wonno salatal fatiha to ummi to ko jaɓa ha gasi ne lako waral moɗin salatal fatihi fimu bayiye ko fale foof dañ ko fa nangu ba noppi o wi ummi koto kuntuji meɗen tati to ceerno nena mu ngi bàyyee koo ci suñu ñett kunt yii kuntu kanzan lam o oraf kuntu nabiyan kuntu waliyan ceer na neen beneen kunt bi nag mu ngi ko denci <laughs> ceer na yaldu o yi oon ko ko moofta ceer na beneen kunt bi yore na ko waaye nag boobu nag dañ ko denci o wii son teskitima ceer neena bu dee yéen a ngi bàyyi xel ndenjaa den kuñakaari bi ñu demee kuñakaari e ceeɗu ngul ngu ci ci ci jamonoy tangorlool abdoulahi bari ne tawa abdoulahi bari fekkeena ko ci ve hedde mois de mars ci veeru mois de mars enen fof sérif diallo oɗen tawa ñoom sérif diallo fekke nañ ko e o wii kala jaadunooɗo e meeɗen on ziyara omo tawa képp koo xam ne yàlla dogaloon na nga ànd ak ñun ziyara boobu yan ko fekkee ñane heen ko kiki yiide alhamis taggal takkusaan bis boobu alhamis la tombe won gannaaw takkusaan ene wuli nguleeki ɓurtuki ceerno nene mu ngi tang tangol gu ëpp lool o wii ko e oon kuntu o yiɗnoo nokkude nene ci kuntu googee mu wax mu ngi denci ci la bëggoon tibbu omo arda seeɗa seeɗa muy ñëw ndànk par ndànk o wii tan asamanu o ƴiwni rek asaman sidaadi hiin o yahaani e ndeer kuntu o konnguɗi ɗiɗi konnguɗi tati nene huusul jibir kuntugoogu ñaari kaddu ñetti kaddu o wii haa asamanu o fof ɓawli nene baddi saasi rek asaman siyeppudaadi ñul kuk nde o ɓanti kuntu o bu mu ɗeme ɓa jege kuntugi o wii tan baade juppi rek to otoɓe daadi sooteeku o wii yimɓe fof daadi ndogi ñappudaadi daw omo joguino micro jamono joni mugi yoge mugi yore micro o wi on aywa nde he micro mum aywa teylen sey micro o wi kadi toɓo ngo wi kat tawbidaadi arrêté o wi ha hande ɗum ɗon nan e portable kaalidi so nena loolo batey mugi ci portable haalidi so omo windi ñalawma o date o foof mugi bindi bisbi ak date bi lepp وفي أون كنت ننكو كنت مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي نينا كنت بابو كنت مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي وفي مني مو إيه كنت أودن كو تيرنو ما كو تيرنو محمد البشير نينا كيكو مصلنا تي كنت مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي بابو نك سيري نمبو باخ باه مو تيرنو محمد البشير وفي ناني أمو يوتي دا أي وبي أوي مين مسوسا نياغو راد مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي موتاخ سانك ياغول موي وقتان اك نجابوت مبل توا مونيلن مان نيميووما دي نياني سي بارك شيخ عمر تورو شيخ عمر ويو اسوسا نياغو راد اند شيخ عمر نيميوول نياني سي تورو شيخ عمر وي سا نياغوري مومو سا رنتاكي تان دوم بورتا جودما نين بو مويتوول نياني تورو شيخ عمر رك la nga doon ñaandey uppi loxo o wii ene jogii goɗɗo mo noddata kanko cheikhu umar o ara o nooto am na keneen ki ngay wo moom mawlana cheikh alhaji umar mu ndiwndaadi wuyu o wii saa noddiimo tan on kam so allah jaɓi ko kun faye kun tan wonata koko nag boo ko woowe busooɓe mawlana tabaraka wa taala kun faye kun rek lay nekk o wi wonaa sahaa fof noon neɗɗo waawata noddudemo nendu jamono june rek mu daal di fay dugg nag di ko woo o wii ko way no ceerno bachiru en kam noddataamo lu mel ni ceerno bachiru moom duñ ko woo o wii nde wonno miijooji maɓɓe yettiima to allah la ko waral moo di ñoom seeni xalaat rek yegg na fa yàlla o wii kanko ceerno kala ko miijanima to allah ɗum ma allah tabaraka wa taala waɗane lum la xalaatal ci yàlla loolu yàlla tabaarak wa taala dana la ko defal kala ko ma e aduna ma ɗum woni ko allah toma mbolen lim la xalaatal ci sa aduna loolu moy li la yàlla di defal o wi ɓinngel capaato non kala ko halam ma to lest listo itidum doomu naar nag lim la wax ci susufu tillubare wala ko o wi sinno wanano hulde budul won ragal mo o haalan en heen ko ɓuri ndaari budul won moytu dananñum ci wax li gën a yaatu lii o wii nde wonno ceerno ne horsini mo ne hollimo hoore mum nena ceerno kuko ñeewanti lool waaye tamit kuko won boppam la o wii kono no hatta fofde ceero mouhammadoul bachiru ko cuuɗiiɗo cuuɗiiɗo cuuɗiiɗo haa a ɗeɓataa anndude mo nena gannaaw loolu yëpp yit Ceerno Mouhamadul Bachiru jëmm joo xam le ju làqu la làqu la ba doogo awa xam kuy Ceerno Mouhamadul Bachiru o wi he cankitan omo luɓii ɗo ceerno omo luɓimo deftere mu ngi barki démb rek mu ngi abal ceerno Bachir benn téere o wii luɓde ceerno Bachir oɗo ɓan deftere way kono rokkude doombi gerte ni o wi way kono kalfina doombur gerte ma ni nene mi abal ko téere dafa mel ne comme nga jël say gerte dénk ko ay janax o wi defte ngartata ala ko o wi gufi ngal sa daldi gerte ma doobi gufi ngartata ala ko haali gerte ceero neena boo jëlee say gerte nga dénk ko ay janax xollidi du ñu dellu sin rawatina gerte gi nag o jiimi heen haa juuti ceero neena ma daal di sëgg ci téere bi ba mu yàgg o wi ay ɗum ɗo fof ko jiimi ɗo ko mi yii ɗum e ceerno mo daadi wax ceerno bachir gis nga li yëpp li ma gis fii gis naa ko ci ceerno mouhamadoul bachir o wi ɗum ɗo fof kadi o hollii kam ɗum li yëpp i tamit wonnama ko o wi ɗum noon haalotaa ko e dental ceerno nee na loolu nag kenn du ko wax ci mbooloo o wi so allah walliima a yehii haa a yii ceerno mouhamadoul bachir hay saa duwaaki hay sadu waaki boo demee ba yàlla wërsëgal la nga gis seer mouhamadul bachir nee na doontane ñaanoo doontane ñaanoo kanko noon ceer mouhamadul bachir omo wondi e meeden xalban wa qaaliban omo duwani en mu ngi ànd ak ñun ci biir ak ci biti te yit ceer mouhamadul bachir mu ngi ñuy ñaanal yoo allah jaban en bi jaahi rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam ceerno wi en calmini fof en duwanima fof en juurima fof o wi en duwanima fof kono en jejjiti alhaji yunus yusuf sanya neena fàtte nañu nak borom caméra bu baax bi di alhaji yusuf sanya walla taw en ganndamo walla dañ ka jotul xam ceerno wi kañum andanam ceerno neena mom xamuko won sabu omo ara e makko ndax dana ñëw ci mom omo suudi o halata haybat da fay làqatu te du wax dara ha allah wadi o ari o ardi e biiko ba yàlla dogal mu daal ñëw andak domam omo inniri ɓiɗɗo o sérigne babacar kadi o wiyani ceerno o o wiyete ko sérigne babacar o wi ɗum tan o wiyete ko babacar mo gi andat doomo mo gi tuddu sérigne babacar waye bi muy wax ceerno ki sama doom la waxul sérigne babacar babacar kese la wax o wi haqqillam addi mbimi oɗo joolakamo holto heeɓi babacar walla sérigne babacar ceerno nen mo daadi dikk rek sama xel bi malaaj ma waxlima joola bi moom falla amee sérigne babacar Pape Malick Serigne Serigne Pape Malick Pape Malick Sy kamne himo o wi ndekete yo ko Pape Malick kodda Serigne Babacar Sy ko kañum nehimo ne ndekete yo Pape Malick caatu Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhum moom moo ko yar tono yahanno fof kamɓe jaadat fo haj Pape Malick daan ndem moom ak Youssouf Sagnane mi ñooy ànd o wi hay so tawi on ne yaha e Serigne Cheikh ko kamɓe njaadol don tane sen pape malik mu ngi dem ba ci sen cheikh ñoom ñooy ànd ah, o wi njiimi no teeyiri ni eno nehori ni eno jaggiri njambour makko ndeketo yo wonto muyni ceerno nena ma gis ko nu mu yare ni mu teye boppam nu mu dale ndekete yo am na fi mu namp o wi abdoulahi bari en kamɓe gondi rts hay ɗum ɓe ganda ɗum neneño abdoullahi bari ño boko nek rts wawi lolu yeppa xamuño ko won er, haji yousuf ceerno nene ñung ley nuy dila ziyar a salminama a juurama yo allah waɗana en jaam o waɗana ɗum ɓesgu nelaɗo allah sallllahu aleyhi wa sallam foof yalna ñi allah defal jammu defal ko xeetu yonente bi sall alayhi wa sallam o wi samba si o kam ko kamɓe pindi ko kamɓe dawdi sambasi mi ñom ñoom ñoo bokk démb bokk tey o wi ko mamiraabe mabbe perdi ummodade do yaade e maulana yaadude e mawlana cheikh alhaji oumar alfouti radiyallahu taala anhu neena sambasi mi seeni mam ñoo bokk gadda e andak mawlana cheikh alhaji oumar alfouti radiyallahu taala anhu o wi tata cheikh alhaji oumar alfouti ka ko mamiraabe mabbe gubbi gumminatno kaaƴe ɗe nena tata cheikh alhaji oumar bo nekk cakkuña kaari mamu ñoom samba si ñi ñoo ɗon yëkkati mur ɓi o wi bam makko rokkimo ceerno gila o heftinani ñaama makko e nano makko wayjurom nag yëkkati ko jox ko ceerno ca jamono jojo xammewul ndeyjoor ak cammoñ ko kanko noon heedi e radio safine o moom nag mom mo feeto ci wàllu safine radio bi ceerno wi min ganndaa min duwante walla min moftante duwa ceerno en xamuñu ndax dañ lay ñaanal waaye dañu walla dañuy denc suñu ñaan bi rek o wi sabu duwaaw koko soodete te aan a addaani taw ceerno nee na ñaan dañ koy jënd waaye yow nag andeegoo dara ba tey oyi kono ha hannde mi ñamleto waaye ba tey danaa la rebal nadaana lebal incha allahu aan e directrice maaɗa e dendaangal gollotooɓe e radio safina fm yow nag ak sa direct ak hajja ñum ak mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéey ci rajo safina fm o wi kamɓe gollotooɓe e radio ko délégation mawɗo ɓe mbaɗi ɓe ngari neene ñii liggéey ci radio bi délégation bu rëy lañu def daa di ñëw o wi liggotooɓe heen hannde e oo ɗoo sahaa e liggotonooɓe heen hanki ene njehii e nokkuuji goɗɗi kamɓe fof ɓe ndenndi ɓe ngari ñii liggéey ci radio bi tawi fii ñu toll ak ñafa jaaroon di liggéey tey ñu ngi ci yeneen bërëb ñoom ñëpp ñoo mobilisé wu ñëw fa tabaarakallahu ànd ak ceerno ci bis bi o wii waɗata ɗum ko gondigal moƴƴal ceerno nee na lii nag boo ko gisee li koy waral moo di ni ànd gu rafet yoo allah acci din en ko juuti yal na yàlla yàggal suñu ànd gii ceerno wi suddiiɓe ɓe sohna salamata sohna mariyam ba e gorgilaaɓe wonɓe galle o e ɓesngu ngu e hoddiiɓe ɓe ɓiɓɓe ɓe kamɓe fof ɓe nduwanaama ɓe njaarnaama yo allah waɗ e maɓɓe barke ceerno neena suñu tantiine kicibir kërgi fa tabarakallahu sohna salamata sohna fa tabarakallahu mariyam ba ak ñeneen ñi nekk ci biir kër gi njaboot gi ñoom ñëpp ceerno neena sant nañ leen gërëm nañ leen ñaanal nañ leen yàlla tabaraka wa taala ceerno wi kala mo jaggaano wirdu cheikhana ahmad tijani sharif radiyallahu taala anhu yo tinno de o jaggo ya wirdu kep ko xamne jelo won tariqa sayyid cheikh radiyallahu taala anhu gor gor lul nga dem jëli tariqa bi wana influence non non ko jam o wi wana influence ko yiɗande en jam Thierno nee kàddu gi du kàddu influence yéene ñépp jàmm motax mu wax ko o wi woni ko den naane ko ko nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi hay goto gooto limanaagal mudum hakkunde mudum e allah wawa timmude wawa sellude so wana ko yidani hore makko ko o yidana dum musiddo makko ceerno neena luddul li hadith yo nabi sallallahu alayhi wa sallam waxni kenn ku ne ci ceerno neena tay ci jamono ji new na nit ko xamne da nga sañ a wax ni man setna naa o wi sa ci piraga tambe ci pirabe ñane dooma bo boo bërewul yi bëree dal sa kaw o wi ha tente non e do alhaji whatsapp o wi kala mo ne heɗoo whatsapp o seeɗaani whatsapp ayo o dañi problème ci arone buñ ko tuddé allah ji yo wi seyɗaane whatsapp o wi ha tengti e keɗotoɗo whatsapp sa e kaalowo whatsapp o wi ene famɗi ne mbasata dañde ceerno neena nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci wax jiidi de rawatina kii nga xam ne yaa ngi am lii nga xam ne moom la ñuy wax whatsapp waxoon naa ko beneen tur mu ne déedéem dañ ko wax seytaane whatsapp nee na fekk yaa ngi déglu whatsapp bis bu ne di wax ci whatsapp nee na néew na mbal la na nga mucc ci bàkkaar ceerno wi holko waɗanimo wiide cheytane whatsapp li tax mo wax cheytane whatsapp o wino foti galleji pusi taw ala ko fusi ɗum sowna whatsapp ceerno nene ñaata kër ak tas te amul len leleen tas lu dul whatsapp o wino foti jikkuji mboni te ala ko bonni ɗum so wona whatsapp nene ñaata jikku ño yàqu te amul li yàq jikku yooyu lu dul whatsapp o wino foti cihilagal boni te ala ko bonni ngal ɗon cihilagal so wona warsab ceerno nena ñaata domu dayi yo ɗon anda guir jimmi yalla te ñu tekkali ko te amul liwaral sen tekkali ko goo ludul warsab gii o wi hol foof no neɗɗo heɗorto audio arema haala wooda ko haala hen anda ko gonga wona walla wona gonga tan keɗoɗa gasna nelda goɗɗo goɗɗo neldo goɗɗo goɗɗo neldo goɗɗo ceerno neena girlimu wax rek moo di ni ni audio dikkee ci yow nga déglu audio bi luñ ci wax xamoo ndax dëgg la wala du déglu nga déglu noppi rek transféré ko ci keneen kooku yóbbante ko ci keneen rek fa tabaracallahu audio bi daal di wesaaro ci àdduna bi yëpp o wi audio ji ɗi njiyeten ɗi ko ɓuri heen heewde walla film uji ɗi jiiya tan heen ɗi ko ɓuri heen heewde tawata koko betti neɗɗo o neno audio yincii gis leg leg yici gëna bëri walla film yincii gis leg leg yici gëna bëri day fekk daña betti doomu adama jooju a arat aɗa jooɗi aɗa yewtida e sehilaaɓe ma ɗa ngay ñewdi waxtaan ak say amdi jammu say soppe taw ko kaalton ko ko sirru nder mooɗon fekk li ngay ndi waxtaane sekkere la seen biir taw won gonɗoɗa ene ne wujji on ne film on fek am na ko nekk fee catatu fenêtre bi mu ngi leen di filmé so yalti o sara bugiinde mu wesaare ko wiye i jam ko kaali haali kaaɗo haala ñun i diw ndekete moo wax wax jii o wii taw kanko kaaloowo o walla kanko kaalɗo o nde o haalata kaaɗon haala nde o haalata ɗum ɗo ɗo haali ɗum ɗo omo waawi haalde ɗon kaaɗon haala ceerno neena fekk ki wax wax ji wax ji bi mu koy wax fi mu ko waxee mun na ko wax foofu moo tax mu wax ko foofu o wi tan ɗum saro e aduna fof rek wax ji daal di tasaaro ci aduna bi o wi ko ɗum waɗi o wi laawol cheikhana ahmada tidiani ngol ɗo e ngol moƴƴi e meɗen ceerno neena loolu rek moo tax mu ne tariqa mawlana sayidi cheikh radiallahu taala anhu bii aka baax ci ñun moƴƴe e meeɗen <laughs> o wii ene moƴƴe e meeɗen kanngol laawol ngol e o wii a naatat e whatsapp walla ko wonaa whatsapp aɗa roondo bakatuuji haa hiire ceerone nde ngay duguci whatsapp walla leneen luɗɗul whatsapp ngay sef ay bakkaar ba guddi jot o wii so juuli takkusaan ma boo jullee sa takkusaan e o wii njaggaa e kurus maaɗa nga teye sa kurus mbiya astahfirullah nga daal di wax astahfirullah e joomam e yow sama borom yaa yaafomi jéggal ma ko ñallumi haalde ko lima yendoo waxtay e joomam yaa yaafomi e ko ñallumi heɗaade ko e yow sama borom jéggal ma ci li nga xam ne moom laa yendoo di déglu e joomam yaa yaafomi e ko ñallumi ndaarde ko e yow sama borom jéggal ma ci li nga xam ne moom laa yendu di xool e joomam yaa yaafomi e message uji ɗi ñallumi windude ɗi yow sama borom jéggal ma ci message yi nga xam ne moom laa doon bind e joomam kadi yaa yaafomi e ko jahanmi ko ngannduɗaa wonaa kadi maa ngi lay jéggalu ci dox bi nga xam ne moom laay dox di jëm fi nga xam ne waruma fa woon dem ويكو دوم استغفر الله استغفر الله تيرنا نين لي مودي استغفر الله استغفر الله وي سن جي استغفر الله كو كارفيجا ساب بونو سوتي استغفر الله فوكي بيرلا فوكي حرف لا ا اس تا اغ في رو الف الف لام لام لام ها صقير o wi ko karfeje sappo fukki lettre la e o wi ɗo bakkatuji natirta enen ɗo ɗo fi bakkari di tabbe cinnit ki e terɗe ma peñƴe ɗe e sosey cer yu feeñi o wi kañum ne ko terɗe sappo fukki cer la gite ɗiɗi noppi ɗiɗi hunuko woni joyi juuɗe ɗiɗi koyɗe ɗiɗi e tergal cuuɗigal ngal e mo woni al awra ceerno nee na fukki yii la ñaari bët ñaari nopp gémmiñ muy juróom ñaari loxo ñaari tànk ak awra bi nëbbu bi mu nekk fukk ske o wi astahfirullah mu ne astahfirullah bi nag saa waɗi ɗu mboo ko defee harfeere heen fof lettre bu ne ene loota bakkaat gongal e tergal gootal harfu bu ne dana daa di raxas ci bakkaar bi nga xam ne moo nekk ci benn ci cër yooyu هاتر لا بشر نانا بشر يب مجسد ويت وفي هدو برنه مدادي دس خلب وفي صلاة على النبي صلاة على النبي دادي نيو وفي قل نلاد الله صلى الله عليه وسلم شفه لي ننتبه صلى الله عليه وسلم عرطاء برنه دو تبي تبير خل وفي عطاء اندن برنه شيطان مفك تبير خلب بو شيطاني E o wi hay so tawi cheytane ene hewno e ɓerde don tani cheytane feesonna cibir hol boobo so salatu alalnabiyi ari tan bo salatu alalnabi ñewi rek o wi tan o puusirat seeɗa seeɗa ɗe gay gis muy randu ndank par ndank ha o yaha bamo mujja ɗem o wi gillinelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam gara cofeelo yonantibi sallah alayhi wa sallam daadi dëkk daadi tabbi so gilli nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ngari bu cofeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkke o wii yurmeende allah ara yurmande yàlla daal di ñëw won mbiinooɗo ɗo naane am na ki fi waxoon sànq ne so tawii a juuli e allah sallallahu alayhi wa sallam laawol gootol boo jullee ci yonent sallallahu alayhi wa sallam benn allah juula e ma laabi sappo yàlla daal julli ci yow fukki yoon o wii noon o annda holno allah juulirta e neɗɗo waya xamol ni nan la yàlla di julle ci nit o wii allah juulirta e neɗɗo ko yurmeende ni yàlla di julle ci doomu aadama mo yermandem o wii sa juuli e nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam bo julle ci yonente bi sallah alayhi wa sallam benn yoon allah yurmoma laabi sappo yàlla daa di lay yërëm fukki yoon sa juuli e nelaaɗo laabi sappo so julle ci yonente bi fukki yoon alla yurmoma laabi temedere yo allah daadi ley yeram temere yon sa juuli ene laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam laabi temere bo julle cewndim sallah alih w sallam temere yon allah yurmoma laabi ujunere e allah daadi ley yeram junni yon o wi omo sikki noon yurmede allah tabaraka wa taala gotel e neɗɗo o omo sikki kay heeƴi ceerno nena amna yakar ni yirmande e wa taala ci kaw jamam فوق نني بن بريك دوينا على كو حال نو ساودي تيمي ديرندي الله يورما ما لا بي يور لا بي اوجنر رواتينا نك ولا امول لو وقت ني بو ديفه تيمير يالا دادي لي ييرم جوني يون او وي هدونون روحو تيرن نمو دادي دس روحو بي روحو لا اله الا الله روحو او لا اله الا الله تيرن روحو بي نك موي كلمه لا اله الا الله او وي نون روتين تامو تو امينو تو mom nak mo koy delloo fi nga xamne ne la baye ko won o umminoo ko e hadara allah mu ngi baye ko won ci hadara yàlla o anati e envelope biete do envelope neddo mo daadi tambi ci jimmi do mo adama shaytan ari huri e mako shaytan daadi dik mur ci mom aduna ari aduna daadi dik huri e mako muru ci mom o wi belaɗe fittandu ari bëgg bëgg aduna daal di ñëw huuri e makko daal di muuru ci moom o wi ha o wayino gonɗo e nder prison bo mo mujje mel ni ko tabbi ci biir prison o wi oɗo la ilaha illallah e laawol cheikhana ahmada tidiane ceernonen la ilaha illallah bi nekk ci tariqa seyidi cheikh ahmada tidiane ko oɗo noon waɗatamo libre e oɗo prison mo wonno nena bi nag moo koy muccal ci biir prison bi nga xam ne ci la nekkoon o wi ɗum waɗi kala tijaani yenke mu njiiɗa moo tax bépp tijaani ye boo gis soo foppiima milet bu diwoo li ñuy diwo omo jël bi mu ngi leer foo foppaaki milet bu diwowul milen omo jël bi mu ngi leer nde wonnoo annoore allah tabaraka wa taala nene e makko ceerne naka fekk leeru yàlla tabaraka wa taala mu ngi ci moom yurmeende allah nene e makko yurmaande yàlla mu ngi ci moom o wi ballal allah ndimbalu yàlla mu ngi ci moom o wi tijaaniyanke ki nga xam ne taalibe cheikh nga allah ene rokki ɗum sutura yàllaa ngi la may sutura soo wiyaanima mi alaa bu la waxul ni ma nde awma saa ndaarima boo ko ne jàkk a sikkat ko milliardaire da ngay foog ne sama waaji daal ab milliardaire la o wi wadde je omo waggina en e laawol men ngol ɗo woni laawol sayidi cheikh ahmada tidiane chérif radiallahu taala anu ceerno neena mu ngi ñuy dénk nañu ngoy lool ci tariqa sayidi cheikh ahmada tidiane chérif radiallahu taala anhu o wii ko malal mawngal woni heen ceerno neena muccugum rëy moo ci nekk o wii ko malal mawngal texe gu rëy moo ci nekk o wii naane imam moussa haali sank rek imam moussa wax na استغفر الله تيمير تيمير استغفر الله صلاه على النبي تيمير صلاه على النبي تيمير لا اله الا الله تيمير لا اله الا تيمير او الله عنه وي رضي الله عنهم وردو عنه ليل لا ماي موي اي بي تيرنا وخ الله يدتما وي كو الله مولاي بغل بوبام واندين ما هوار مكو محمد بوبام haa njiɗoraamo e ko ngannduɗaa ko ba nga mugg mujjo bëgg yàlla ci li nga xam ne moom la la xamal o wi ndeen noon o welama boobu na nga am ngërëmam o wi bandiraabe so allah welamaama mbokk yi bu la yàlla bëggee nag o wi aduna ma maa moƴu wala moƴala ceerno day laaj ndax sa aduna dana jag wala du jag aduna ma maa moƴu ceerno nee na sa aduna dana jag so allah welamaama bu la yàlla gërëmee ما لا حرام موج ولا موج دا تيرنو نينا صلاه خرا ندخ دخنا باخ ولا دو باخ او وي دوم نون غندن لاول شيخنا احمد تجاني وني هنت كو موجيره ادنا الاخره نانيو خامني طريقه بي ميو ادنا اك الاخره كسه موتي نيك او وي فونتي على هند تيرنو نينا نخ ديدت نيكول سي طريقه بي او وي تابالي على هند تيرنو نينا تابالي نيول سي بي وي على كو الله يدي سود ادنا يالله مو بغ ديمبل موتشل وا ادنا بي ندي ادنا او جي بي ها جي بي ها جي بي بي ادنا بي ديمي با جاخاسو جاخاسو جاخاسو اي يرمن مكو اتاغور ندي يرمان ديم سي خيت بي او وي رسول الله صلى الله عليه وسلم او وي نلا الله صلى الله عليه وسلم دادي واخ يونتي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مداد وخيرين صلى الله عليه وسلم نيون يالا دي يوني وون لا لودول نيغا نيك جيم يرماند سي مبنديف او وي سامي دينا جوكاد جاخر سيد بو امون جاك جاك توتي او وي ندي بي مامي مي لبتتا لنيول مانغول دون دو ادادو بما لا وخيني دوما مبوغل موك سا خيت سا خيت بي fii ak yaa ngi seen biir o wi jogiɗa jaahle seeɗa sa ala ɗo caggal ma ino waddahi leñol ngol gadadi am jaahle tuut ne boo jogee fii ni yàlla di def ak ñoom wa ma kana allahu li yuazibahum wa anta fihim wa ma kana allahu muazibahum wa hum yastahfiruna o wii wadde nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ياوني يرمين اتغورن كم لون يو يونن تبي صلى الله عليه وسلم واتل غنك جيرم جيم يرمان تيمبنديفي او وي كو دوم وني دو تيرا محمد حالناني لولاي لي تيرا محمد واخ سانك او وي او ييت ناد دون تان ندارتين دم دا فا دم باي بوج خوس تي دومين بوبو ريك ني فرينكو او وي دو ابي سمعون اشلالا دو فيغا خامني موي نياري بروب سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه يويا او وي اومو وندي اي المبد إيه مكو ديدوبي علي الدمراوي محمد ابن دمراوي الدمراوي التازي او دون كوكو ادني مو سيود ادني مو سيود كو جيلي مكو اي شيخنا احمد تجاني رضي الله تعالى عنه شفيلا اكسري نمبه nelaaɗo allah sallah alayhi wa sallam yiɗorimo sababune yidde mo seydna cheikh radiallahu taala anhu yentiɓe sallah alayhi wa sallam mujji soppu ko ngir cofelam ci seydna cheikh radiallahu taala anhu omo yiya nelaaɗo allah sallah alayhi wa sallam almuɗo seydna cheikh radiallahu oɗon laabi nogas e nayyi e nder 24 heures sur 24 o dana gis mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki ak yoon ñaar fukk ak ñeenti yoon ci 24 heures sur 24 heures bi cheikhana ahmada tidiani tolninoma nokku ene hersanno namdade nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam gede sayyidi cheikh radiallahu taala anhu na ci jamono dan rus mamam laj ko yenn yi o wi addamrawi oɗo cheikhana tidiani haalnanno haaju o on haalna nelado allah sallallahu alaihi wasallam nelado allah sallallahu alaihi wasallam jabo jaabo damarawi damarawi haaltana ɗum sayidna cheikh radiallahu taala anu ceerno neena damarawi mi la sayidi cheikh ahmad tidiane dan wax soxlaam kooku dadi di koy yóot yonent sallallahu alaihi wasallam yonentibi deglu limu wax tontu ko mom damarawi mom damarawi mu andi la tontu bobu mawlaana sayidna cheikh radiyallahu taala anhu ويين دون نوكو بي كوسام ملدم نال الله صلى الله عليه وسلم سويمو دا فا فك نيتو يالله بوبو طالب السيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه بروم صوص لابل بروم من بولابل موتاخ يونتي صلى الله عليه وسلم سفيكو خوتو تيند هواري مكو بلا موي دم بييك بوبام ويقول لك أنها تتحرك maa ngi lay biral di la yëgal ni boo gisee bis bi nga ma ciy gis ñaar fukk ak ñeenti yoon lu gir sa jëmm jii de ko gilli maa e cheikhana ahmada tidiani nee na li ko waral daal moo di ni sa cofeel ak ci sama sët bii di maolana seyidi cheikh ahmada tidiani nee na daal yokk ɓey du gilli maa e cheikhana tidiani yonent bi daal di koy ñaax ne ko dollil sa cofeel ci seyidi cheikh ahmada tidiani sharif radiallahu taala anhu o yi ɗum ne kadi ko safree de وي سنلالو على صلى الله عليه وسلم سفرانو بوكو يوندي صلى الله عليه وسلم تيلول ون فاج انا واونو جيبين دي غودوم نينا مبير مي مونون نجوري لنين هونو نو شيخ عمر الشريف محمد الغالي كوم ديغنت شيخ عمر اك شريف محمد الغالي وي شيخ عمر كونيت دو شيخ عمر نيتو يالا بيني تيلا ديمبالي لا كادي اوما اندي كو ندارتو تاكو تيي خامنا لي موي ووتي oma andi kadi ko kango jeerum ta xam ne loolu moo sabunde sabu o ari e chérif ghali bi mu dikkee ci chérif ghali omo jogi gandal timmungal amna ham xam-xam gu mot omo jogi bingu mo timmungu am amna tamit askan gu mot sëk omo jogi dental timungal amna na ngumbu am na mbooloo gu mot sëk omo jogi kadi jawdi ha heewi amna ju alal ju mot sëk نوالي دوبي تاتيدي اووني دو اندي شريف محمد الغالي كان كو شيخ عمر توتامو ديباس نينا نيت اد يمو نيك شريف محمد الغالي موم شيخ عمر موي генي ديباس ديكو جوخي او وي كان كو هولتين تا محمد الغالي هولتينا غالي اوفف موم موي جوخ شريف محمد الغالي جوخ كو نجابوت جي او وي اري اي allah ene rokuma e gandal zahir ko ganduda cierno mo garda o wawa sagidem neena dik nga ci sëriñ yaangi am xam-xamu ci walu zahir lo xamne ne bi nga seet sax munula ci gaganti o wi ari ka di ka jom lasli moji ñëw nga yi tamit yaangi baye ko ci askan gu bax o wi sabu eden ngandi fuuta kala mo cheikhu oumar jiidaani a itantaake gedal na xam nañu fuuta gi ku ci bokkul ak cheikh alhaaja oumar kenn du la jox cër kala kadi mo jokkondiraani e makko a itantaake geɗal képp koo xam ne nanguwo topp gannaaw cheikh oumar kenn du la dindil cër o wi ɗum noon ko e kindi ɗi pop ne nee na loolu nag ci gi ci xeet yëpp la mala ci famille yëpp ci giir yëpp al allah rokkiri pulaar o wi isna achara asbaqan o to kaalaɗo e qur'ana allah ene rokki ɗum kadi e nder ɗemgal pular elle allah ene rokki ɓe ɗum nena fukki guir ak ñaar yi yàlla waxoon fële ca alquranul karim ne boo seete la dafa mel ni comme fukk ak ñaar yooyu yàllaan ko may askanu haalpulaar o wi haalpulaar en ko kinɗe sappo e ɗiɗi ngoni heen nena askanu haalpulaar fukki giir ak ñaar ñoo ci nekk o wii hinde heen fof ina jogi holko darantono e renndo ngo nena giir bune am ngi mecce bi nga xam ne moom nga ɗon taxawale sisabir askan o wii kinɗe ɗe pop kala jokkondirnoɗo heen e mawlana cheikhu oumar a yiiti heen hoore ma nena giir yo yëpp giir bucci jokkoo woon ak maolana cheikh alhaji omaral fouti nena gis nga sa bi gis nga sa bopp ci biir jokkoo bi nga jokkoog maolana cheikh alhaji omaral fouti o wi oon kay soo ari tarbinaade eɗen nganndi wonaa daraja o ƴeewata nena nitu yàlla boobu nag su ñëwee di tarbiyu nena xam nañu du dara du daraja lay wut si o wi alhamdulilahi rabil alamin on sahaa nde o yahata omo jogii dental nde wonno kala leydi ndi o naatti leydi ndi ma dillu ne sant ñeel na yàlla jamono jooju cheikhu umar am na mboolo gu takk ndax réew bu mu dugg rek réew moomu day daal di yëngatu am ñu bëgg ànd ak moom o wii ndew ari nigéria to cheikh ousmane foo dee bello bi mu ñëwee nigéria ci nitu yàlla boobu on meeda ummanaadi neddo kooku mutul musul gàttandiku benn doomu aadama kono nde cheikhu umar ari nde on ummi koy nokku muɗum وجوجين دون شيخنا عمر واي بي شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه يكسي واي جوجو دا فا جوغ سي بلاصام مو دادي فاي توغلو مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه وما جوغي سودو خلوه وما جوغي سودو خلوه امنا بن نيك بيغا خامني تي لاي جامو بوروم o wi gilande suudu ndu feewna onati ton hay bi ko wana goddo meeda nadde ton biñ ko tabaxale neeg bo bo mu noppi mu duggu fa neena du njabotam waxi noppi kenen nak musu faa dugg o wii ko ndun suudu o jippini cheikhu oumar ceerno nee na ci biir néeg boobu fala dalal mawlana cheikh alhaji oumar al fouti radiallahu anhu o o wii ɓii ko mouhammad bello namdi wi baaba mbeɗa namdoma hannde de mi yii e ma komi meeɗa yiide doomam ji nag ne ko papa tey daal dama lay laaj ndax gis naa ci yow loo xam ne musuma kaa gis ci yow وي من بام مادي مجاب ما اكونام دي داكم كو ميدو نياغو تونو الله تبارك وتعالى يو الله ارزقنا مي ولي يبردو اي ولي يابي بي بوب allah waɗani kam ɗum hannde ɗum waɗi njiiɗa ko njiiɗa ko nena musulman so woyjurde naala tonto cilaaj bi nga xam ne moom ngama laaj ndax maa ngi ɗoon ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla nama yàlla wërsëgal ma dajeg nitu yàlla bi nga xam ne moo raw ci nitu yàlla yi moom la ma yàlla defal li tey lii moo tax nga gis ci man li nga gis ci man tey lii o wii mata eyani gila pinnen faade e jooni diwe ɗe en meeɗa yiide ene ndiwa ene tiimi e dow koye meɗen haa jooni gorgui de daadi wax domji ne xana gi so biñu yewo ba tey picci yi nga xam ne ñu ngi ñu sëpp ak picc yoo xam ne musuñu leen gis seeni melokaan ñu ngi ñu tiim dippi suba ba tey yi gisoo loolu yow o wii ɗiiɗo ɗiiɗo colli ɗi njiiɗa kala ɗo njiiɗa ɗi tiimi waliyu allah o o mon ɗon nena picc yi nga seen sàng foo leen gis ñu sëpp rek nitu yàlla baa ngi ci bërëb boobu o wi ɗoo noon yimɓe ñalli arde ɗo nit ñi nag yàgg nañ fi ñëw o wi kono noon nde mbiimi cheikhu oumar nde tan nganndumi ko oo ɗo waaye bi ma yàlla wërsëgalee sama bëti tegu ci cheikhu oumar rek ma xam ne kii mooy waaje o wi sabu nde cooyni moomu omo ara nee na bi ma ko séenee muy ñëw ndaar mi hoore ma ko ma xool bopp bi omo yaha bopp dem ha o asamanu asamanuji jeeɗiɗi ɓa bi xoti jurom ñaari asaman o yimi mi de to haa ɗo e hawma fo mu yem nag o wi mi les koyɗe mako o wi jiimi koyɗe ɗe ma gis tanki eɗe njaha ñuy dox haɗi ɓeyni leyɗele jeeɗi biiji bañu rombu jurom ñaareelu suuf mi anda non do haadi xawma fo mu yem omo ɓatto kam mu may jégué omo wonta jimmi neɗɗo moy nekka jimmi doomu adama omo ɓallo kam omo wonta jimmi neɗɗo moy nekka jimmi doomu adama ha o yetti kam bomu daadi yegg min ne ngummimi joƴƴinmomi to jooɗinomi ɗo manitma jog o wi ngummi ma daadi jog nag toglo ko fima fima togon o wi to yahata to noon wonko addoye toon felemu jëm am na lum fay jeli nag o wimi du wima noon so yehi hoto ƴan hay nokku so wona ɗo ñannate yallah mbo deme ba jeli ni muy jeli mbomo jar fenn ludul fii so arti ɗo noon eto e ɗen ƴiiƴam meɗen e ƴiiƴam makko renda na ngen gorgorlol suñu deret ak deretam jahaso nde o arti nde ɓe dokki mawlana cheikh alhaji oumar al fouti sohnajo ene wiye aicha ɓe cheikhu oumar ñewate nag ñu may ko ab sohna mo ngi tudd sohna aicha omo wiye nena satouru mom la ñuy tuddee tamit ba tey nena satouru on woni yummum lamɗo juulɗo mo nanteno koku moy waydjur lamɗo juul mi ñuy dégg o woni ahmadou cheikhu oumar ko kay ahmadou cheikhu oumar o wi jaaduɗo e ngal ɗo e dokkal ki nga xam ne ɓe ngay tukki yaa ngi ànd ak mayu yàlla gu gu tollu ni o wi aan kay aɗa anndi aɗa jogii dokkal moo ngal yow kay war nga xam ne am nga may gu réy kono non won ko woli ton ko buri dum do fof ceno neena waye nak amna li nek ci bir li muy wuti li ëpp li nga xamne mom la yore won woni ton li fa ne koko allah rukuno baba adam ko moy li yàlla mayon suñu wayjur ju bax ja muy muy yonti allah adam alayhi salam wa allama al adam al asmaa kullaha on sirru secret bobu nde baaba adama yahata biba biyonti allah adama ɗi dem o rontini ɗum siisu mu don mu jokko domum siisu siisu nde yahata siisu bi muy dem rontini ɗum mbiyu mu dontal donnal ko domam ha yetti nuuhu ha yetti e bamu yegiti nuuhu ene yaha ene yaha muy dem ɗi dem ha yetti isa bamu yegiti isa ɗo isa ɗo noon dari foof nak mu taxaw fa nde wonno nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam hay gooto wonata ceerno makko ndax yonente bi sallah alayhi wa sallam kenduɗo ek sérigne am haa allah addi jibril ba yallah anndi jibril jippini e makko qur'ana wacce ci moom alqur'an o wii kamɓe tafsiroɓe qur'ana ɓe ñoom ñi nga xam ne ñooy tafsir alqur'an eɓe waawi taw eɓe nganndi ɗum amana ño xam lii ma bëgg a wax ceerno mouhammad tin en ceerno bani hachim en o wii jibril alayhi salam wii annabi o sallah alayhi wa sallam iqra jibril daadi wax yonni sallah alayhi wa sallam iqra o wi min min mi janngaani man jannguma o wiimo janngo o wi min mi janngaani man jannguma o wii haa tataɓol o wiimo janngu mu daadi ko wax janngal si ñetteel bi o wi holko jannga mu daadi ko wax lalaa jang o wii janngu innde joome janngal sa turu boroom o wi ko ɗoon o haadde makko fof la yem ak moom وليه حال ليلة الإسراء والمعراج بمدمنة بليلة الإسراء والمعراج وليه سر قنود تو تو علم الآدم الأسماء كلها سكر بنيكون فليت وعلم الآدم الأسماء كلها وليه الله ركي مدوم تون تو على كير دو الله إن الله الله صلى الله عليه وسلم ما أوها وليه يلا دادي جل نك سكر بوبو jox ko mawlaana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fekk jaarul ci loxo benn yonent jaarul ci loxo benn malaaka loolu moo tax yàlla ne fa awha ila abdihi ma awha yàlla ceeru nee na yàlla ak yonent bi nag ñoo xam la moo fa nekk o wi yàlla ne allah haalani ne laa tan ko ko haalan ɗum ko yàlla daal li mu wax yonent bi moom la ko wax o wi no comment ay ɗum noon ala commentaire ceerno wi daal commentaire ala heen allah de jangtaaki ko ɓe kaaldi ko e allah de tuddulli ñu waxante kanko kadi nde o artino hay robe allah yi tamin kadalika nde o yehi noon ha o fayi e jo hoodde e joomi kanko rasulullah sallah alih w sallam bo mu deme nag ba mujjantelu dunda moom rasulullah sallah alih wa sallam o jangini batine o noon seyidatuna fatima mu daadi jangal nag batine mbirmi nag seyidna fatima رضي الله عنها يولي الله ونعمكو هذا اون ياد بلا كوكو ديدم و اتباد موجوغينو مو يكتي بادين بي مو يورون و توتي سيدنا علي المجاهد كو جوخ سيدنا علي اون ني جوغي ظاهر او اباتنو كوكو دادي بول نياار ييب مو ظاهر بي اك باطن بي ني سيدنا علي يحد بي سيدنا علي ديدم اون ني توتي سيدنا الحسن كوكي دادي جوخ سيدنا الحسن zahir e batin foof kooki daal di koy jox zahir ak batin sayidna alxasan da yaxata ka ñu ne bi muy dem moom it o setti sayidna alxusayn mu daal di koy jox sayidna alxusayn ene yaara noon muy wéyee noon haa zahiro ba zahir bi e batin o ak batin bi e batinul batin o e ko woni caggal muɗum rasulllahi sallllahu alayhi wa sallam rokki ɗum cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zahir boobu bi ceerno wax ak batin bi ak batinul batil bi ak la nekk ci seen i gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy yëkkati nag jox ko suñu sëriñ ba muy seydina cheikh radiallahu taala anhu oui cheikhana tidiane radiallahu taala anhu oɗon sirru noon o totti ɗum chérif mouhamadoul haali nee na sidina cheikh radiallahu taala anhu secret boobu nag yonent bi daan dontal di dontale ba mu yegg ci moom mu yëkkati ko jox ko chérif mouhamadoul haali o wiimo eywa yaa jooɗo e makko mu daal di koy wax ne laggal demal ca makkatal mukarram nga toogi fa maa joomum aran boroomam dana la fa fekk on noon woni cheikh alhaaji umar al fouti radiallahu kooku nag du kenn ku dul ni cheikh alhaaji umar al fouti radiallahu taala o addani en mu daal di ñuy indil o wi ha hande ko hen gurɗen batay fiñu tollo ceñu dundu o wi kala galle nodduɗo ɗo e leydi ndi o noddiri allah yimɓe notimo junngo mawlana cheikh alhaji umrol fouti nan e nder oɗon galle ceerno nena bépp kkeru diine bu nekk fiici diine gi bo wootele yallah nit ñi wuysila nena nanga yëg ne loxo cheikh alhaji umrol fouti tabbina ci biir kër googo o yiili e sénégal fof alaa ɗo yahani yalla mayno ko worno sénégal gi yëpp amul fu tegul tànkam omo yiɗi kankone andude holmo resnata zahir o e batin o kan lay dénk zahir boobu ak batin boobu omo andi poɗɗo ɗaldeɗo o on denen to alamul arwahi suwa arde aduna xam ne ki ñu war a dénk yëf ya mu ngi ca alamul arwah ñëwagul ci aduna allah wadi kaw jiyado allah odon tawimo toto hore fone o itta sirruji ɗi o fawi e jooɗum o resnanimo wonande joomum cheikh alhaji oumar al fouti ɓumi nekke hoore fonde nijaayu nitu yalla biñu bëgga wax léegi daadi koy fekk ca hoore fonde mawlana cheikh alhaji oumar al fouti jël mbootiya dénkuloo ko nag jarbaatam bi nga xam ne moom mooy ñëwi on noon wona hay gooto so wona Mawlana Sayyid El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu Ceerno nee na kooku nag nga xam ne moom la ñu jëloon mbiri ñu dénkuloo ko ni jaayam du kenn ku dul ni borom parasol ba di Sayyid El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu oh non nde wonnoo ko kañum jeeyu nee na kooku nag naka fekkoon ni moom moo ko moom o tasi ɗum e aduna hee fof mu daal di koy wesaare ci aduna bi yëpp haa teenti e leydi sénégal rawatina nag réew mi nga xam ne ci la ñu nekk o wii so wonaano batte corona ceerne budul woon jamonoy corona وي سنو ونانو كورونا اورو على وورو على لي على ليغل على غلل سو ونا فاتح لما اغلق انا جانتي دون تاو كو غاندا هورما اي تارغول مولانا سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه تيارو نينا بودول وون مباس مي في ني تولو تي جامونو جي ني نينا دو ولا دك بو du keur gu reew wala mu nek keur gu tuti du néeg bu reew wala mu nek néeg bu tuti lu dul ni ñu ngi fay sàq mi salaatal fatihi li ma ngar la ngir lan ci barke wessare bi maam sayid alhaaji malik si radiyallahu taala anhu defoon o wi sunno be jangino ko cheikhana ahmad tidiane radiyallahu taala anhu halfin en ko buñu jangon li nga xamne mom la suñu gor gi cheikhana ahmad tidiane denkon sinno nedi needi be men be budul won yar gi nga xamne mom la suñu khalifa yi àndal o wi al wazifatu li nga xamne moy wazifa o wi wazifa don ko defare e denndaangal région wala e capital wala e département wala e arrondissement baawɗo janngeede wazifa o wi seyidi cheikh radiallahu taala anhu o wi don wazifa ko hoolaare ko defaare e oɗo nokku ceerno neena neena benn wasifa boo xam ne jàng nañ ko sayyidi cheikh ahmada tidiani neena wasifa boobu garanti la ci capital googu wasifa boobu garanti la ci région boobu wasifa boobu garanti la ci département boobu wasifa boobu garanti la ci arrondissement bu mu tafisee ko خمرتين غابنتم أهل تيجان يومي سواكما بغدور البدر عدنان قد صح ما قال شريف عناية ceerno neena ko addanimo ɗaccude ɓe jima ceerno nde tohmo mbawi nguen woy kono kadi ne ko jima ton ko kadi muusi kam o wi kadi ko jima ton ko muusimo liggende woy tamit metti ko o wi oto jiyaɗo allah wino ene yima o dartin ɗum nene jewamo yo allah be sanko boggo no woyde mune ko mayma o wi onon ne on gummini o deƴƴi yen yekkati gen rek mo noppi o wi o hersi wiide on deƴƴe honono wiide to deƴƴe deƴƴe deƴƴe o heewa ceerno nene madadi rusdal wax len noppil en comme ni ma waxe won kale noppil nene noppigi noppil en gi daadi bëri loolu moo tax waxuma dara kulmi noon walla walla walla mettinmi o wi o mettini mo daadi dal mer walla kulmi o huuli mo daadi ragal oto ɓernde mum dillude hade hade oto ɓernde muɗum dillude ko sabu tijjanige ceero nenama dal ma ragal mbala holo kaleedi yengatu girli mo nekko taliɓe seydi cheikh radiallahu taala anhu hande jamma kala kone dillina ɓernde tijjanige waɗaneɗo o wi hande jamma hande o kala kone dillina ɓernde almuɗo tijjanige hoto jaabu wadde ɗum ceero nen dal mum ñuy denk mbollem lo xamne dang koy def mu yëngalu xolu talib sayyid Cheikh radiyallahu taala cerna ah mo ci lolou de ha tenti non e odo saha rawatina ba ci jamono jini ñu toll o wi sayi yewter ne o junni hen hande yettoɗo bo gisee waxtan bi mu teye ko bomo yegg fi o wi o yiri ko yewter ne yetto 5 h wala 5 heures moins écart bu bëgg waxtan bi mu dem ba 5 h wala 5 heures moins écart o wi den duaw cakkitoroɗen duwawñuɗaadi koy mujjé ñaan ñaagoɗen allah ñu ñaan yàlla gooto emen e kala kenn ku ne ci ñun kala ko woni himme ma lépp loo xam ne sa yitte la yoo allah humtene yàlla na la ko yàlla fajal kala ko woni kulol ma lépp loo xam ne ragal nga ko yoo e ɗum won kumpa ma aduna e laakara yàlla na loolu doon sa kumpa aduna ak allaaxira oy sañ isa laay ceeroneena kontaan na o wi meruma ngir yéen waaye dama tiit ngir kële Umar o wi nde wonno neɗɗo wonko hulata ko heewi nit am na li muy ragal lu bari o wi hasanatul abrar o wi ko sayyiatul muqarrabina o wi kanko de o jeyaka e muqarrabina en o wi kono noon omo huuli ahlul muqarrabina en o wi nde wonno koɓe kumpa a anndaɓe o wi waliyaɓe ɓe ene pecci pecca tati fof o wi feccere wotere benen cerbi o wi ceerno wi waliyaɓe ɓe ene pecci pecca tati ceerno nena nitu yallayi ñetti haaji lañu lañu seddu oɗo ko waliyu omo andi ko waliyu yimɓe ɓe ne gandi ko waliyu ceero nee ne kii waliyu la xam na ni moom waliyu la nit ñi it xam nañu ne moom waliyu la on yimbene mbaayu rentaat ɗum kooku nit ñi mun nañ ko moytu ooɗoo ko waliyu kii waliyu la omo andi koo waliyu xam na ni moom waliyu la kono noon yimɓe ɓee nganndaa koo waliyu waaye nit ñi xamuñu ko waliyu la on ne waawi rentaade yimɓe ɓee kooku mun na moytu nit ñi oto kimu jekkoon wax mo adi wiido ko yimɓe ɓe ndentoto ɗum oɗo mo wi joni ko kañum rentoto yimɓe kimo wax leygi mo moy moytu nit ni o wi tatabo o noon ko waliyu kono o anda ko waliyu yimɓe ɓe ganda ko waliyu kilen ñettel kinag moodi ni moom waliyula waye xamul ni moom waliyula nit ñi tamin xamuñu waliyula koku nag on noon o wawa rentade yimɓe ɓe yimɓe ɓe mbawa rentademo koko nak munul moytu nit ñi nit ñi munuño ka moytu o wi oɗon o wayi kono kurus taƴƴo e ceenal jammani koko mu melni kurus bo xam ne dafa dog ci guddi ci kaw suuf ci suufu géej neena o wi so kurus taƴi heen bu kurus daggee foof o wi ma ɓooye membaade di nga yagg lambatude aɗa wawi hawrude e hayre aɗa wawi hawrude hunde foof mun ga dajag doj mun ga dajag lune o wi ɗum noon a moƴƴinat jortoma e foof en ceerno en lool nak da gay rafetla sa jorto ci ñëpp rek eɓe gona e rewɓe eɓe gona e worɓe ñooñu danañi nekk ci jigéen ñi danañek ci góor ñi eɓe gona e seeremɓe eɓe gona eɓe gona seeremɓe danañu nekk ci sérigne si danañek ci ñene ñu dul sérigne si eɓe gona e geseji ɗi eɓe gona e biroji ɗi ɗanañeneke ci biroyi ɗanañeneke ci tolya eɓe gona e cañirgal eɓe gona e e kadi e masiŋaji tayoraji ɗanañu neke ci fiñuy rabbe ɗanañu neke fatamin fiñuy ñawe eɓe gona e mawɓe eɓe gona e sukaɓe ɗanañ neke ciñu magñi ɗananeke cami ci dawñi o wi hay kewɗo hebɓi heb huɓɓinde wonki sukaabi on anda ko warde ko neena tamit barina tamit ko xamne barina limuy tàngal xolu ndawni koku de xamagul batay limuy def o wi hay cierno jengino wa qur'ana o mo rentin ma ko heewi hoto piyete sukaaɓe hoto piyete sukaaɓe rawatina serign si nga xamne ñu ngi jàngale ndawni di len jàngal alquran cierne mo ngi len di ñaax di len fatali toujours bu len di bari li ngeen di dóor xale yi o wi sukaaɓe be ko ɓe mbuusuuji allah ko alla tan andi ko woni mabbe neena xale yoyu ay mbusu yàlla lañu yàlla rek mo xam la nek ci ñoom o wii ɗum walli en sheikhana sheikh alhaj umar al radiyallahu taala anhu ko kanko woni sans medel yàlla dimbali nañu nak ñun mawlana cheikh alhaaji oumar al fouti radiallahu taala anhu mooy suñu sens o wi min noon cheikhana oumar min accata giɗam ɗo e aduna mi accata kadi giɗam janngo to allahira nena man sama soppe fii ci aduna duma ko seetaan duma ko sàggane tey duma ko bàyyi fële ca allahira tamit kadalika duma fa seetaan sama soppe duma ko bàyyi tamit mu demee noonu o meeɗi haalde ɗum musna ko wax ceerno saidu nour ene heewi haaltude ɗum bari na li mu koy wax o wi kanko e giɗo makko janngo ɓe tawetaake tampere darnga neena moom cheikh oumar ak soppem duñu fekkee mukk ëllëg taxawaay yowmal qiyamatu ak coono gi yépp o wi muhtar bun wadi atullahi woni ceerno yero yero koye ɗelfi borom ya sahibal wakti o wi ko ɗum o yinno wiide loolu la bëggoon wax mooy nitu yàlla bi o wi jimɗo ya sahibal wakti o ki nga xam ne moo woy ya sahibal wakti o wi nden Cheikh Oumar holto gonton mo daal di wax Cheikh Oumar yéen jamono jooju fu ngeen di nekk o wi miin e giɗam fof min gonata ko les arsi mu daal di koy tontu mu ne ko man ak sama soppe yëpp ci suuf aras la ñu nekk bis boobu yimɓe ɓe ñaawe haa gasa ñu daal di atti nit ñi ba noppi gewnotoɗo ewno ki woote daal di woote o wiya Cheikh Oumar an e ɓesgu ma ngare yow Cheikh Oumar yok sa njaboot ñëw leen oto ne laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam totte caabi aljanna ñu daadi jox yonente bi sallah alayhi wa sallam caabi aljanna o wii ndeen miin o cheikhu oumar koto ñaamo nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam keedan mo mu ne su bisba man cheikhu oumar ak sama soppi ci fa tabarakallahu ndey jooru yonente bi sallllahu alayhi wa sallam ci la ñuy féete o wii ɗum noon ceerno seydnour heewi wiide ganduɗo ɗum e cheikhu oumar añataa cheikhu Umar nee na Thierno Mame Seydou Nour Tall daan na wax ni ku xam lii ci cheikhu Umar waroo noono wala nga bañ Mawlana Cheikh Alhaji Umar Fouti radiyallahu anhu yàlla rokeen yi de cheikhu Umar yàlla nañu yàlla may ñu bëgg cheikhu Umar bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o wi o hesɗitinde wiide en ko hoto en jejjit laawol cheikhana ahmada tidiani li muy beesalaat di ñu ci soññ mooy bu ñu fàtte ɗariga seydi cheikh ahmada tidiani o wi ko ɓuri hen moƴƴude fof saɗa hoota ɗaccu ha koota e nokku ma ƴeewa muqaddam ɓalliɗoma nanga e makko ɗacca gana baax mo rafet moodine ku bëgg jàpp ku ne bàyyil ba nga ñibbi ci sa bërëb bi nga nekkoon nga seet fa muqaddam bi la jege nga ñaan ko charte tariqa bi mu gaaral la ko nga daal di jël tariqa bi nga dem sa yoon ceerno wi e raɓɓitinde dal gooto e meɗen kala kala ɗo mbawɗa wonde sénégal caroynaɓeɓe yo ƴeewu moqaddameɓe caroynaɓe pikinnaɓe ƴeewu moqaddam pikinnaɓe dalifor naɓe keur masar naɓe malika naɓe mbawnaɓe ha fouta tiwawon pulnaɓe sangal kamen kamɓe foof goto foof ɗo gonda moqaddam sijidi cheikh radiallahu taala anhu nan ɗon jaaha ɗon o rokkuma ɗa lawol ngol ceernanda ti gattal dal kenno kune figa baye ko pikin ɗemnen ay pikin amnay moqaddam Rufisque amna ay muqaddam dem len fa Thiaroye c'est la même chose kenn ku ne dal fo meuna baye ko fofu amna muqaddam Seydi Cheikh bi fa nek demal ba fofu nga ak mom mu jox la dariqa bi na nafoore tan woni hen njëriñ kessa mo ci nek yo allah waɗan jam yàlla yàlla defal jam joni non goto emen fofu yo wat fatiha lawol goto cerno kenn ku ne ci ñun na jàng fatiha benn yoon salatal fatihi laabitati salatal fatihi ñetti yoon yaa latifu yaa latifu yaa latifu laabi ujunere on saha so timmi goto kala ñaago allah haaju mum bu deme bañu matal kenne kuneti ñun nga daadi ñaan yallah nag sa sohla jogiiɗo kurus timmudo temedere ku yore kurus goo xam ne motna temer a yahat laabi sappo kurus o de ngay lim kurus bi fukki yoon e ñaagima allah yo allah rokku en hawrude o saaha mo wuuri ñannañu yallah yallah ñu allah may ñu fekki nagi dewen taw eɗen ɓeydi en ustake fekk ñu ngi yokku dara wañe kulti ñun bi jahi rasulillahi sall allahu aleyhi wa sallam kala ko kalɗen hen ko feewi koto allah ummi so tawi wonko perkitiɗen hen o wi ko neɗɗo wonmo timmani kono onen foof o ñaagimi en yaafuye ñun ñëpp mu ñuy jeggalu kala ko fotnoo haalde taw o haalaani lépp lu mu waroon wax te waxu ko kala mo fotnoo haalde taw o haalaani ɗum ko mu waroon a tuddu te tuddu la ko haqqilla way noon xel moo mel noonu o ñaagiima fof en yaafoy mu ngi jéggalu ñépp yo allah ɗaccide en ko juuti yal na yàlla bàyyi suñuy diggante gi lu yàgg yo allah ɓeydu mbaaw ka kaa yal na yàlla dolli mën mën ba yo allah ɓeydu suturoo yal na yàlla dolli sutura bi yo allah ɓeydu teddugal ngal yalna yallah doli serage ji yo allah wat emen barke yalna yallah tabbilti ñun barke yo allah wat e ɓesguji men barke yalna yallah defti suñu jabot barke yo allah wat e kala ko paggiɗen barke mbolem li ñu faggu yalna ci yallah tabbil barke yo allah wat en tijaniyen kooɓe ɓe ɓorota ko ha abada yalnan yallah def ay taliɓe cheikh yudul summeku ba abada yo allah waɗan en jam o waɗana leydi ndi jam yo allah yo allah defal jammu mu defal rewmi jammu yo allah waɗ e leydi ndi kawral e nanodiral e paamodiral yo allah yo allah def ci rewmi deggo ak jubo ak fa tabarakallahu daje ci yépp nag yo allah riwan en caɗele e leydi ndi e kala probléme yalla nañu yo allah dakkal ci rewmi mboolem jafe jafe ak mboolemi xat xat o wi korona eko wona korona fof ko allah addi so welama yo ya tan o nawat yo allah ittan en ɗum ɗo ceerno nena korona agludul korona lépp yalla ko fi enni bo bëggee mu dem rek day dem yàlla ñu yàlla dindil fii lépp yo allah aynu en reene en yàlla ñu yàlla sàmm te wottuñu yo allah hisnu en hisnan en yàlla ñu yàlla musal te muccal ñu bandiraɓe ummiɓe ha to woɗɗito mbokk yi nga xam ne ñoo bàyyee ko fu sori ha duum nga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 صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات